ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës lu soxal kon passeport diplomatique yooyu nga xamante ne ak ger nag am na ca ba ñu joxan ca baaram ay député ak ñenn ci askan wi nag njiital PCS jéngu tabax di Boubacar Camara mu ngi koy naqarlu tey sàq yoon nag mu def liggéeyam na mu waree eh, ci eh, mbir moomee ci porox ndoll boobee nag la jaaree wax rek li nga xamante ne mooy bëgg-bëggam te samp ndënd ngir jiite euh, mairie bu euh, Grand Yoff Touba Mbacké ñuy waajal euh, màggal gi nag lépp lu askan wi yittewoo ci wàllu dund nag daanu fexe rek ba mu doy fa sëkk direction bi ñu dénk wàllu njënd mi ak njaay mi nag moom moo ko xamle na sax ne foofee ca Touba nag teel nañoo jël ay matuwaay ngir bis bu set nag ñu xool daal fu yëf ya toll su ko defee nag dara du ca manqué tey nag ñi ngi doon fàttaliku rek ba cëg bi nga xamante ni moom la ñu jagleel jàngoro ji ñu duppee euh, myopathie de euh, Duchenne bu ñu ko déggee nag jàngoro la joo xamante ni euh, mandarga gi nag ko ko amee ku ne nag la ñuy seetlu ci yow mooy da ngay faral di daanu saa su ne ñu ne nag jug du la yomb dawit naka noonu mbootaay gi nga xamante ne nag moo njabootee ñi amee jàngoro jooju ci Sénégal nag ñu nga yëglu tey sàkku rek kilifa yi ñu gën leen a dimbali ci yenn ci jafe-jafe yi lii nag les bonnes feuilles de la rédaction la ñu ko duppee ni ngeen ko seetloo alxames ju ne taxaw seetlu ab téere boo xamante ne nii nag saa su ne euh, ñoo ngi koy euh, fësal bu alxames euh, jotee tey nag téere bi téere bu Xaadima Mbàkke la mu nekk nag benn téere boo xamante ne rek kon génnee na ko di ci fësal jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba Ibou Diouf lañ ci fas yéene àndal ci kanam tuuti lay doon mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen loo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ñu doore ko rek ak ni ñu ko junjee woon euh, ci ndoxte li muy passeport diplomatique yooyu nag ñu jàpp ni ak gert nag da ca laxasu te mu am ay député yu ñu ci joxañ baarama tuuma ak euh, ñeneen Boubacar kamara euh, jiite nag PCS jéngu tabax nag mi ngi naqarlu lu ni mel tey sàkku rek yoon daal mu def liggéeyam képp koo xamante ni tudd nañ la ci nañu leeral daal ba mu leex nàññi kàddu yu mu yëkkati la dénk ko Talla bu loolu weesoo ma ngay wax yéeneem tamuy samp ndëndëm euh, ngir euh, jiite mairie bu Grand Yoff ñu teewlu ko. xam nga réew bu tolloo foo xam ne dafa bare li ñuy wax trafic maanaam luubal luubal dootul bàyyi dara mu ngi mel ni guro gu sankar rek sankar gi day gën di avancé loolu moo ñu dal luubal bi nag bu nekkee ci réew euh, ba dem ba laal institution yi nga xam ne ñooy représenter peuple bi ñu xam ne nag daj na kàpp luubal nag bu dajee kàpp li ci war mooy faj ko te li koy faj mooy programme politique ñu war fexe ba ku sa loxo setul doo laal lu ñëpp bokk parce que lu ñëpp bokk ah ñëpp ci war a jot waaw lépp lu ñu teg ne yoon bi nii la war a def ñii koy teg yoon bi ñoo war a fexe ba ñëpp jaar ci bu dee passeport diplomatique ni ñu koy joxee loi bi daf ko bind ñu bind ko ci ay décret ñi ko bind ba voté ko bu dee ñoom seen bopp ñoom ñoo koy jalgati ñun ñëpp dañu jaaxle. Mhm. kon nag yeewoo jaaxle waaye am espoir aussi parce que boo yeewoo jaaxle ñëw janoo ak sëñ Muntaxa ci dal bi danoo janoo ak sëñ Muntaxa ci teey bi janook moom ci bëgg réew mi. ak euh, li mu représenté ci Serigne Touba dañuy am espoir kon nag dañuy ñaan léegi nag état bi na jël responsabilité lépp lu ñu war a lijjanti rek ñu lijjanti. lu jëm ci wàllug euh, yoon ba tey nag ak euh, lépp loo xamante ne askan wi danu ko yittewoo euh, ci wàllug këyit nag ñu war ko jot ñu ne nag lu soxal wàllug xarala yi war nañ ko gën a ñoŋal su ko defee nag nit ñi bu ñu soxlaatee këyit ci wàllu yoon ñu bañ a amate benn jafe-jafe ma waral nag ay kilifa yu yëngu ci wàllu yoon nekkoon nag ca cees ngir rek kon ñaax ñi nga xamante ni nii rek ñoom ñooy askan wi waaye kilifa yi fi ñu war a jaar rek ba loolee mën a sotti Jibril Ba général bu cour d'appel bu Thiès ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Anta Diop ak Seyla Tira am benn ndaje bu ñu def fii si cees ñu koy tuddee séminaire si baatu tubaab euh, pour waxtaanee naka la ñuy def pour fexe ba nga xamante ne liggéey bi ñu liggéey dinañ ko liggéey ci anam yu sell ay yu mucc ayib wante tamit ñu fexe ba ñi nga xamante ne ñoo soxla justice bi ci wàllu àtte walla si wàllu wutum kayit ñu mën a am li ñu bëgg te du ñu jànkoon teg ak ay jafe-jafe yoo xamante ne euh, ñu ngi koy constaté bés bu nekk. surtout si jamono bi nga xamante ne dañu jànkoon teg ak feebar bi nga xamante ne moom la ñuy wax Covid 19. Euh, xarala yu bees yooyu nga xamante ne lëmbee na àddina bi mu ngi si àddina bi loolu war na egsi si biir administration de la justice. dinañu may ñu fexe ba nga xamante ne képp koo xamante ne am nga soxla boo ñëwee sa soxla bi dina faju ci anam yu gaaw. ci anam yi mucc ay da nga war a def euh, examen wala nga war a def benn concours wala nga wut war a wut liggéey ñu ne la am na kayit yoo xamante ne fokk nga dem tribunal nga dem wuti ko léeg-léeg kayit yooyu pour nga am ko su nekkee ne yaa ngi dëkk dakaar war nga dem ba Tambacounda wala war nga dem ba Saint-Louis loolu dafay indi ay jafe-jafe moo tax ñu ne il faut ñu soppi kanam bi nga xamante ne moom la bérébu attekaay di doxee moom la justice bi doxee ñu am ay jumtukaay yu bees yoo xam ne moom la ñuy utiliser pour permettre. may ñi nga xamante ne soxla nañu kees yooyu ñu mën ko am ci am bu gaaw te duñ ci ànd ak benn jafe-jafe. li nag euh, xibaar bu ñu jot euh, léegi la mu soxal rek euh, barrière bu débarcadère bu Gorée foofee nag ñuy jaar di wàcc di ponton boobu nag nee nañ am na ca wet goo xamante ne daal dafa daanu te ni ko ni ngeen ko gisee nii ci nataal bi xam ngeen ne lii wóorul dara ñoom ñoo nga xamante ne nag ñoo féete ca wet googee nee nañ nag ku ca war a jot di kilifa ñu war la ko wax wax nañ la ko waaye ba nëgëri dafa mel ni dañ leen di tànkam lu ci mbir mii dinañ ci dellusiwaat. Euh, Touba ñuy waajal màggal gi nag lu askan wi euh, yittewoo ci wàllu dund nee nañ daañu fexe daal ba lépp nag euh, mate fa direction bi nga xamante ni moom moo yore wàllu njënd mi ak njaay mi moom moo xam xamle lu ni mel ne ca Touba nag jël nañu sax ay matuwaay ca teel bis bu ne nag daanu xool lu soxal wàllu ko dund bi na yëf ya toll su ko defee nag ñu mën a fexe daal ni ma ko waxee rek ba dara bañ a manqué directeur du commerce intérieur Oumar Diallo la ñuy diwaanu euh, Touba kàddu mi yëkkati dénk ko Talla Samb. suñu tànk tànk jàmm rek la mooy dañoo jot ndigal ci suñu kilifa mooy madame le ministre du commerce et des petites et moyennes euh, pour ñu ñëw xool li nga xam ne moom moo fi nekk ci mbirum approvisionnement marché Touba. loolu nag ndigal boobu mu ngi sokkee ko ci réunion bi nga xam ne moom la ñuy def altine bi passé xam ne dañoo woo waa commerçant yi nekk Touba ñu ñëw à Dakar. ak yeneen ñi nga xam ne ñooy commerçant yi importé ak ñiy euh, defar euh, produit ci biir Sénégal ku nekk wax li nga xam ne moom mooy sa problème ak li nga xam ne moom la ñu yaakaar ni loolu la ñu war a def pour que mu dox. ci ngir mbir loolu nag bu mu paree la soxna si madame la ministre joxe ndigal léegi direction du commerce intérieur ak service régional du commerce de Diourbel ak suba bu nekk dañoo war def li ñuy wax relevé de stock. mais aussi dañoo war a xool tamit lu nga xam ne moom mooy besoin commerçant yi nga xam ne ñoo nekk Touba pour que bu fekkente ni am nañu ay commande te commandes yi xam nañu fu mu nekk ñu lijjanti ko xam kooku ñu commandé lu mu nan la ci taxawee. moo tax léegi service régional chaque matin day def relevé de stock xam commerçant Touba bi lu mu soxla ci ceeb si diwlin ak ci suukar. mu wax ko directeur am directeur bi waxtaan ak ki nga xam ne moom moo mooy fournisseur ba fournisseur bi nag moom tamit mu xam ni dafa loolu. te bu ñu defee système boobu bu ñu ko waxtaanee altine ba ba léegi ñun dem ñëw nañu tey pour xool ndax mu ngi dox te ci wax ci kaddu commerçant yi nga xam ne moom ñoom la ñu seet gis nañu ni système bi mu ngi dox. gàmmuk euh, Medina Baye it ñu ngi koy waajal ca weer wi ñu dëgmal lay doon fukki fan ak euh, juróom ñett euh, foofu it ca Medina Baye ga ca Kaolack ñi ngay jël ay matuwaay daal ngir gàmmu ga nag lépp mën a tegu ci yoon ab CRD nag amal nañ ko fa matuwaay yooyu ñu jël nag fexe bokk na rek ci fexe daal ba amal fa ab campagne ngir rek askan wa mën a ñàkk bu baax a baax ndax mbas mi bu loolu weesoon nag ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu dimbali leen ci ay test yoo xamante ne rek euh, daanu ko jagleel ñi nga xamante ne dañuy ñëw di euh, gàmmu si di bàyyi euh, ci yeneen i réew ñu teewlu Pape Mbaye Diaw ak Faly Gueye ñoo ñu toogal ca diwaanu Kaolack la ko wër. comité d'organisation gàmmu Medina Baye bëgg-bëggam rek mooy ñu amoon événement bopp te du am benn jafe-jafe ci jamono ji nga xamante nii danoo nekk ci covid bi loolu ba moo waral ñuy sàkku ñu amal benn campagne de vaccination boole ci tamit ñi nga xamante nii dañuy jóge biti réew di ñëw fii nga xamante nii moo di ci gàmm gi ñu man a jotee ci test su covid yi comité d'organisation bi demandé na ko pour que ñu mën a organiser fii peut-être ay camp de vaccination fii ci Medina Baye pour mën a pour mën a yokk vaccination yi wax nañ aussi ne euh, ñu ngi doon bëgg aussi ay tes pour que parce que ñi ñëw fii di jógee bitim réew dinañ xaw a sakkantooti te dafa am ay ay béréb yu nga xam ne duñ mën a permettre nit nag ñëw di fa dugg te takkoo masque. karange gi tamit dinañ ko renforcer te jël nañ ay matuwaay jëmale ko ci setal ak sellal dëkk boobu nga xamante ni moo di Medina Baye ak li ko wër. karange gi euh, je lu am solo la surtout ci contexte bi ñu toll donc de telle sorte que force de défense et de sécurité yëpp muy police muy gendarmerie muy sapeur pompier ñëpp taxaw nañ pour li dalee ci booy dugg ci Kaolack ci biir Kaolack ak yenn yenn yenn yenn yenn ruq yi nekk ci Kaolack ñu mën a assurer kaaraange ñi ña fa nekk. bëgg nañ daal fexe ba ndox moom manqué na kenn du ko jàmbat ci ci ci ci ci gàmmu gi. set beeg setal bi. as am na ay canaux yu nekk fii ci biir dëkk bi wax naa léegi assainissement ne ko nañu fexe ba canaux yooyu yëpp ñu waxe leen salte ba fa nekk yëpp ñu dindi ko. ngir rek seen doléance yooyu ñu daal di koy matal te du am benn manquement comité d'organisation bi di sàkku ñu amal benn réunion nationale ak acteurs yi balaa gàmmu gee ñëw. am na lu ñu jàpp ne ci manquant daaw yi loolu moo ko indi woon ba tey bokk na ci tawat yi njëkk tawat gouverneur ne ko loolu moom bëgg nañ moom mi yéegal mbir yi mu yéegal ko mu àgg foofu ndax mu mën a nekk ndax am na ci besoin yoo xam ne. service régional bi seen doolee du ko attan donc dafay baax ñu àggee ko état du Sénégal pour ñu jàppale ñu ci. gàmmu Medina Baye war a dawar le 18 octobre ay matuwaay yu bëri ñu daal di koy jël rek ngir que gàmmu gi mën a am ci jàmm. ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, Pape Mbaye Diaw mbootaay euh, moto cycliste yu euh, Sénégal ñoom it ñu ngay yëglu dañoo wàccoon rek ci mbedd mi di ñaxtu lañu la leen metti nag bokk na ci carte grise yu ñu ne yombaluñ leen ko ñoom ñooñu di dawal moto ñu ne nag kilifa yi nañ leen dimbali bu baax a baax ba ñu mën a rek kon jotee ca carte grise boobee naka noonu it ñu ne permis ngir moto yi tamit war nañ ko gën a yombal ndax ñu ngi dund ay jafe-jafe tey la doon janoo taskatu euh, xabaar yi Michel Mamadou Ousseyni euh, moo jiite mbootaay gi ñu teewlu ko ci micro Amadou Ba. suñu ministre du tutelle bon mën nañu wax monsieur Mansour Faye dafa bindoon benn circulaire boo xamante ne dañ ko notifié daf ko notifié à que ñu defal ñu mutation gratuite daf ñu ko may bokk may la dañ koy wooye mu may ñu mutation pour 6 mois pour képp koo xamante ne yor nga moto bëgg a dem muté ji nga am carte grise ci may boobu nag lim ci jublu mooy pour gën a yaxanal sécurité ñi nga xamante ne ñooy dawal deux parce que yàlla dafa def accident yeeg dañuy bëri dafa bëri ay accident ci tali bi sàccu moto yu bëri na insécurité bi bëri. mu ne ci kaw loolu pour mu lijjanti situation bu daf ñuy may juróom benn weer yoo xamante ne dañuy dem muté ji parce que moto yëpp ñu mën leen identifier bi mu waxee loolu yàlla def képp kuy dawal moto kontaan ci rafetlu rafetlu décision boobu. ba ñu demee ba service de mines dañoo gis sax ñu tafal ñu circulaire boobu que ne ministre bi may nañu mutation gratuite pour 6 mois mais yàlla def procédure bu ñu koy topp ñu gis ne may boobu mu ñuy mu ñuy maykat ñoom ñi nga xamante ne ñoo fa ne appliqué wuñ ko te bu ñu leen laajee li ñuy wax mooy jotaguñu ñoom ndigal pour appliquer may googu ñu ne woon nag nañu fexe ba am ay preuve yoo xamante ne nii buñ ñu laajee dinañ ko teg ci table bi bañ ko lijjantee léegi. moo waral sax diir bi parce que le 2 août la mutation bi commencé woon di gratuit ñu ne tey nañ def point de presse gannaaw ba ñu jébbalee ministre bi pour yëgal ko li nga xamante ne moo xew ci terrain bi ñu ne nañ def. mu nga ko mu nekkoon kii jiite rek euh, mbootaayu motocycliste yu euh, Sénégal euh, dakaar dem dikk nag ñu ngi waaja waaja rek daloo ay nag kon bus yu yees ñu ne yàggatul dara rek kon ci at mi lay doon naam sax boîte ba ma ngay jànkonte lay jafe-jafe waaye nag ña ko jiite tey ña ngay def seen kémt lay kàttan ngir génn nag ca jafe-jafe yooyee naka noon it mu am tegub xeer bu njëkk boo xamante ne def nañu ko mu jëm ci ci euh, dépôt bu war bu ñu war tabax ca euh, Mermoz ñu ne nag euh, dépôt boobu koppar yi ñu cay dugal daal ëpp na milliard ak lu teg Oumar Boun Khatab Sylla moom mooy directeur général bu dakaar Dem Dikk ñu teewlu ko ak Alhassane Ba. relèvement bi am na juróomi conteneur yoo xam ne yaa leen gàttandu donc R bu njëkk bi muy relèvement mel na ne wéy na ñu war song nag restructuration ak relance ci sa efficacité léegi nga ne ma bu nu paree. nañu dem siège Dakar Dem ñi nga xam ne ñoo saytu cabinet bi saytu Dakar Dem ñu liggéey ak ñoom ndax fu jëf war wax xaju fa tey ci taxawaayu président de la république ci gis-gisam bu leer ak ci ndigalam la ñu daje fii pour teg xeer bu njëkk bi nga xam ne mooy màndargal siège Dakar Dem waaye nag du ñu yem ci loolu ndax am na yeneen dépôt yoo xam ne ak yeneen i bus ak la ci àndal ci way xarale ya pour que Dakar Dem Dikk doon entreprise boo xam ne dafay am ay bis yu rafet yu bees yu mën a doxal seen mission ci biir Ndakaaru ci biir Sénégal ak fépp fi nga xam ne ndigal kilifa réew bi jox nañu ko. Euh, ci bëj gànnaaru réew mi lañu ñu jëm ca diwaanuk Ndar ak liggéey boobee soxal nag digue de protection ba bu nu ko déggee muy lañuy liggéey rek ngir nag géej ga na muy nangoo yenn kër yi euh, mën a dakk liggéey ba nag tey seetlu nañu ni ay jéego am na ci naam gisoon nañu ci ay euh, jafe-jafe lu toll ci fukki junne ak benn ci doomu aadama nee nañ daañu leen toxal fa ñu naan jugóob diggam nag ak dëkk ba toll na ci fukki kilomètre ak ñaar Ousseynou Diop ay at ñu daan dund lu metti ay xànq di dóor seen kër yi léegi nokki mën na am ci askan wi nga xamante ni ñu ngi ci Guet-Ndar Santhiaba ak Goxu Mbaaj liggéey yi ngir taxawal xàll wu rëy bi aar seen kër yi tàmbali na. projet bi nag ñaari kilomètres lañu war a def maanaam ci ci liggéey bi actuellement def nañ 860 mètres euh, muy loo xam ne mat na ne téeméer bu nekk euh, ñeent fukk yi euh, maanaam def nañ ko. waaye loolu nag xeeb nañ ko ñun bu baax moo tax demandé nañ groupement bi nga xam ne mooy def liggéey bi pour mu renforcer. ñaari kilomètre jàpp gox mbaaj ba génda daañ ko aar dox diggante géej gi ak kër yi yeex am ci mbir mi Cheikh Issa Sall di ci indi leeral. li taxoon nag mu xawoon na yeex tuuti mooy nawet bi euh, transporter xeer yoo xam ne ay une tonne deux tonnes la di koy jëlee si carrière boo xam ne ñaar téeméeri kilomètre la nekk loolu moo xawoon yeexal tuuti liggéey bi waaye nag. commencé na reprendre na te reprendre na si rythme bu am solo boo xam ne jàpp nañ ne bu ko continuer noonu incha allah balaa fin d'année bi dinañ àgg si taux d'avancement bu bu baax boo xam ne dinañ permettre ñu mën a protéger la langue de Barbarie. jugóob nag la ñu war a yóbbu askan wi nga xamante ni seeni kër yi yàqu na te géej gi moo ko waral seen i lim toll ci fukki junni ak benn. aujourd'hui c'est que nous avons prévu environ euh, cinq cent logements. à peu près pour onze mille onze mille personnes. jamono ji askan wi ñu ngi di liggéey yi jeex ndaxte kër yu bari yi nekk ci booru géej gi xànq yi yàqu na ko te digue de protection bi rek. moo mën a tax jafe-jafe yooyu ñu mën ko dëddu Ousseynou Diop ca jamono jooju moom baykat yi féetee ca diwaanu Matam nag ña nga cak uh, njàqare ndax uh, taw boo xamante ne neenu nag na mu war a tawee dëgg ak na mu ko war a defee am na ay uh, jafe-jafe ba tax na nag seeni tool ya daal fi mu ne ña nga toog di xaar rek leneen la leen gën a métti nag mooy dex gi ci jamono ji ñu njoxtoon ni sax xëy na ndox ma dana gën a bari ba mu gën a mën a yombal mbay ga waaye la seetlu mooy dexub Sénégal ga daal dafa mel ni sax dafa faf fer leeraleeg Ali Bandel ñoom gannaaw pause pluviométrique bu xawoon jéggi dayoo ndax weesu na ñaar fukki fan ak benn taw bi ñëwaat na donte bëriwul mu dem ngëneel ci bopp baykat yi nga xam ni commencé woon nañu dund njaaxare ndaxte ci biir toolu jéeri yi ñuy de béyee dugub gàncax bi commencé woon na sax lool département de Kanel ak département de Matam dañuy dund situation boo xam ni toog nañu lu mot ñetti semaine daanaka tawul parce que benn taw lañ fi jot am te ci week-end bi passé la te du taw boo am solo 15 millimètres la ci euh, zone yi xam ni fa la gën a bare loolu nag tax na am na ci zone yoo xam gàncax gi commencé naa yëg maral donc foofu doon na zone yoo xam ni wax dëgg yàlla soxla na ndox pour gàncax gi mën a dem soxla na ndox aussi pour gàncax gi mën a boucler cycle am a meññ nit ñi mën ko jariñoo mu safaanoo lool nag ak yi ñu doon dund at yi yëpp ci gannaaw ren bu ñu moytuwul kat a mbayum wàllu du am ndax nag dexub Sénégal gi moo waroon fees dell ba daal di tuuru inondé suuf boobu ñuy bayee dugub ci waalo waaye kat ci mbetteel dexub Sénégal googule sax dafa commencé wàcc wàcc sax bu gaaw lool comme ni nga ko waxee euh, ren fleuve Sénégal jamono bii buñ ci masaan toll fa mu daan yegg yeggagu fa boo xoolee ci at yi passé su dul 2017 yeneen at yëpp heure bi da doon fekk dex gi lu mu suufee suufee dépassé na juróom ñaari ñaari mètre ci niñ koy nattee ci départ ci ci Matam loolu nag jeexital bi muy am mooy am na ay xur yoo xam ni daf koy feesal ak ndox xur yooyu bu ñu feesee ak ndox bu ndox mi génnee am na xe façon bu ñu fay bayee ñu koy wax culture de décrue te loolu doon xeetu mbay moo xam ni am na solo trop ci sécurité alimentaire de région de Matam tey nag xur yooyu donte commencé naa fees mais su fekkee ni ci dynamique bi nga xam ni dex gi ci la nekk kon fees nga mu war a fees ak diir ba nga fa ndox mi war a toog soo ko génn ñu mën faa bay boo moytul duñ fa yegg. tey jii tembe mun nañu jàpp ni mbayum ceeb bi mooy yaakaaru askan wi fare ci diwaanu Matam ndaxte nag foofee gannaaw bi ministère bi yore wàllu mbay mi réagiré lépp lu jëm ci wàllu jumtuwaay ak intrant baykat yi toogaale nañ ko ba sóobuwaat ci liggéey bi donte nag ren li ñu nemmeeku moo di superficie yi ñu doon bayee dafa wàññeeku lool ci zone de production yi. Ali Bandel ñoo leneen li ñu nemmeeku ci Sénégal muy ñu seen loxo jotul seen euh, gannaaw ñu sonn lool benn million ab gëstu la bu ANSD euh, euh, def nag euh, Serigne Mboup jiite CCBM mi ngi wax rek lu jëm nag ci lim gi naam takku na waaye nag ci gis-gisam moom nee na tolluwaay bi sax taxu ko am solo ñuy sëgg ci lim bi di ko wax saasu ne tey nag li gën mooy xool rek ana yan pexe la ñuy lal ngir nag askan woowee mën a génn ci jafe-jafe yi Serigne Mboup ñu teewlu ko ci micro Mamadou Fall ak Gervais Yao warut a mën a am différence parce que min euh, ANSD ki ministère de l' économie la bokk je pense que ni ñu war a analyser euh, statistiques yi rek moo fi nekk je parce que ni ko nit ñi analyser ministre bi def ko analyser ci beneen côté euh, ci côté bi mu gisee mais li ma seetlu daal ci li ma dégg ñu ne population bi moo yokk c' à dire on a moins de pauvres mais l' de pauvres mais loolu tamit dañ ci dañoo war a xool ni ko saafaraa xam nga man bëgg Euh, yokk na yokku nu ko war a saafara ñëpp xam nañ ne Sénégal euh, soxla na richesse soxla na richesse ci visibilité soo demee ci surtout dans les régions euh, ñi ngi def dakaar ay investissement yu mag Dakar ñëpp ngi def ku bëgg liggéey da ngay daw ñëw si dakaar loolu rek le fait que y a l'exode rural rek loolooy wane ne ndool gi yokku na ci ci ci ci rural ma ngoog ni ko waxee woon rek kon ci ndoxteel li tey nag euh, di euh, bëccëg bi ñu doon fàttaliku rek jàngoro yi ñu gën a xam ci myopathie de euh, Duchenne te mandarga yi nag ñi ko amee ñaare dañuy gaaw a daanu lool ñu seetlu tamit ne ay jafe-jafe daanu ko am ci seen tànk lu ci mel ni moole yoo xamante ne léeg-léeg nag tolluwaay wa dana jéggi dayo dañuy am ay jafe-jafe ngir jug mbaa sax ngir daw mbootaay bi nga xamante ne moo njabootee ñooñee nag ma ngay koy artu euh, tey sàkku rek ci nguurug Sénégal ñu dimbali leen ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund euh, Birame Ndiaye euh, dara nag moom sàkk na ba tey ci nguurug Sénégal ni ñu ko waxee rek mu wax ci jafe-jafe yooyu ndax jàngoro jooju gisuñu lu ko faj lu may rek daanaka ay garab yoo xamante ne dana koy jël wala bokk mbirum kinési thérapie ñu jàll ci euh, leneen muy les bonnes feuilles de la rédaction alxemes ju ne nag lañu koy euh, indi Ibou Diouf nag di ci def taxaw seetlu ci yenn ci euh, téere téere tey bi nag bu Xaadim Mbàkke la Abbas ñu duppee ko nag politique bi nga xamante ne tey ji daanaka rek moom kii ko bind nag gës nu ko ci mbindum Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk loo xamante ne lu am solo la boobee téere Ibou Diouf nag ni ma ko waxee rek moo koy def saa su ne ñu ko. maa ngi bind téere bi ñu tuddee ko la politique tiré des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba maanaam ab doxalin ci wàllu politique wala giseen ci wàllu politique boo xamante bi ñu ngi ko sukkandiku ci li Serigne Touba bind. muy téere bi nga xamante ne Xaadim Mbàkke Abbas moo ko xaatiim wekk ko ci lenn ci jaar jaaru Cheikh Ahmadou Bamba. moom nag mu taamu ci gis-gisam ci wàllu politique ak ni mu mën a jëriñi askan bi. politique bi tamit li ñu si jublu nekkul politique boo xamante bi ne li ñu wax politique au sens machiavélique du terme maanaam politique wut nguur ak nooy téye nguur maanaam loolu mooy politique bi nit ñi gën a xam waaye politique bi nag maanaam politique la boo xamante bi ni ñu ko waxee mooy politique au sens aristotélicien du terme maanaam politique ci tabax ab société boo xamante bi ne dana permettre doomu aadama nature bi nekk ci moom mën a développer wu ba mu nekk nit ku baax. loolee mu duppee politique tirée des écrits de Cheikh Bamba mu ne juróom ñetti pàcc la bu ci nekk rek mu ñëw ci loo xamante ne sëñ bi bind nag ci wax ci lu yaatu. yeneen idéologie politique lu mel ni le nazisme le fascisme et le socialisme communisme yooyu noonu ñaareelu bunt bi ñu wax ci la religion ñetteel bi le savoir parce que savoir Sëñ Tuubaa daf ko jox importance bu rëy ñetteel bi mooy économie ñeenteel bi mooy euh, maanaam la le vivre ensemble ak tamit éthique am na ci ak la non violence ak la culture. ci biir téere bi nag wax na ci li nga xamante ne noonu la askan wi war a taxawee ku ci nekk war a fësal li ñu duppee. yar ak teggi nit bu amee bi yar defo yi nekk ci moom yu bëri day day day day day mucc mu wax ne tamit nit bu amul yar maanaam dundam ci biir société bi day nekk nit koo xamante bi du am sociabilité maanaam ndax comme jege da koy day da koy yokkat ci ay jikkoom yu yu ñaaw ak ay waxam yu ñaaw bëri ci li ñuy wax ci sëriñ bi day fàtte jaar jaar bi ni mel rawatina nag li nga xamante ne mooy actualité ci wàllu politique. Euh, nekkul ci politique wut nguur wala nooy téye nguur loolu bu fekkoon téere bi loolu lay wax mën nañu wax ne politiciens yi ñiy def politique rek lay concerné waaye téere bi gën na yaatu loolu maanaam dafa jóg ngir tabax doomu aadama. politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Mbacke Abbas moo ko xaatim muy téere boo xamante ne rek te ko mool ci juróom-ñetti pàcc loolu may na ko mu ñëwaat ci jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba wala gis-gisam ci wàllu politique. mu nekkoon les bon feuilles de la rédaction ak Ibou Diouf ñu wax euh, ci tàggat yaram ak euh, suñu gaynde yu jigéen yi euh, ci wàllug football am nañu ndam nag ci kaw Cap Vert benn bal ci dara lañu ko dóor ñoom suñu gaynde yooyu nag fantasy di xamle nag ni jongante bi yombu toon waaye lu mu ci mën a doon ndam li moom ñu ngi koy rafetlu te loolee nag du ñàkk mu xëy na mu indi leen rek dara ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñuy waajal ñeel soxna yi fantasy ñu teewlu ko. alhamdulilah nag génn nañ seen victoire mais c'était un match c'était un match très difficile parce que équipe boo xamante ni dañ leen a fekk ñu posé la mais alhamdulilah génn nañ seen victoire ñu ñaan yàlla tam match bi ñu jëm samedi yàlla mayaat ñu suñu ndam bu set ci pour mieux préparer notre qualification contre le Bénin équipe bi équipe boo xamante ni équipe bu lakkale la en même temps dañoo posé donc pour ñu xaw nañu créer lay problème quoi aussi mettre le but la woon diggante Sénégal ak Cap-Vert mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti léegi léegi 20 xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Sara Cissé